asalaamaaleykum mbokki internet Siweulko TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay kenn ku si nekk di leen ñaanal jàmm waaye tamit di ko sàkku si yéen ndaxte jàmm si la lépp xaj comme ni ngeen ko gisee nii si image yi ñoo ngi fii si siège bi nga xamante ni si moo di siège Pastef ñu ngi gisee ni tey si suba ah, dañoo nemm ne dañu ko daal dafa am ay ay ay nit ñu ñëw daal di koy taal gis ngeen ko nii si image yi siège bi nag ñi nga xamante ne si ñoo di waa Pastef Ousmane Sonko. Euh, fi la ñuy defee li nga xamante ne si moo di conférence de presse waaye tamit fi la ñuy defee seen i li nga xamante ne si moo réunion à chaque fois nga xamante ci war nañu dajalo comme ni ngeen ko gisee si image bi eh, si image yi autant pour moi euh, dañu jot comme information sànq ni euh, siège bi si suba la ko daal di taal ay ndaw ñoo fi daal di ñëw yor seen cocktail yéen a ngi xool sax bu ngeen xolé bu baax di ngeen gis xotti xotti biteel yi yor seen cocktail daal di koy daal di koy taal waaye tamit daal di koy taal ba pare daal di dem seen yoon voilà moo ngi nii si image yi ñoo ngi jot information bi nag sànq ñi ko taal bi ñu ñëwee fekk ñu leen fi fekk nañu affaire yi am ba pare loolu tax fekkuñu leen fi parce que euh, dañoo yéex a jot information bi ñu ngi xamaan sax ne si fajar teel lañ ko daal di taal si fajar teel lañ ko daal di taal. tey kenn mënu laa wax ñi nga xamante ne si ñoo ko daal di taal ay ndaw daal lañuy wax ne ñoo fi ñëw daal di yor ay cocktail daal di koy taal ba pare daal di dem seen yoon. den fàtte ne siège bii moo di siège Pastef siège Pastef voilà fii nga fii la waa Pastef di defee li nga xamante ne si moo di seeni i seen i seen i conférence de presse seen i réunion fii daal la ñuy dajaloo ci gàttal bu ñu waree am ah, li nga xamante ne wax nañ ko war nañ ko waxtaan. ñu daal leen di bàyyi xool ñu daal leen di bàyyi ngeen daal di xool image yi. donc gis cocktail yi ñu yi cocktail daal di def li nga xamante ni moo di essence daal lañ koy defaree voilà boo ko sànnee nag butéel yi boo ko sànnee fu mu dal day daal di exploser fu mu dal day daal di explosé comme ni ngeen ko gisee démb Sénégal traversé na benn soirée ba nga xamante ne si c'est une c'est une euh, gis nañ ne taal nañ ay ay lu ci mel ne ay oto oto yi nga xamante ne si euh, ñii di nekk si gouvernement bi ñoo ko moom waaye tamit taal nañ ci ay kër euh, waaye tamit ndaw yi génn nañ ci mbedd yi. di di wane seen naqar li nga xamante ne si moom lañ daal di teg seen leader boobu noonu di Ousmane Sonko ba tax ñu daal di def yooyu ñaawteef yëpp kii di Ousmane Sonko sax démb def na ab déclaration bi nga xamante ne si 23 heures demi daal di nay jot déclaration boobu noonu si si liñ si mën a jàpp ci ay kàddu yi nga xamante ne si kii di leader Pastef moo ko wax moo ngi ni euh, moom daal euh, dafa sax daal di bëggoon jeexal loolee nga xamante ne si moo doon da nekk caravane bi kon nag bu ñu sukkandikoo si li nga xamante ne si moom la wax mën nañ jàpp ne kii di Ousmane Sonko avant euh, kii di Ousmane Sonko avant ñu koy arrêté daal moom dafa bëggoon arrêté li nga xamante ne si moo di caravane boobu noonu parce que ci lu ñu xamal mu ne déjà daf ko réussir na ko objectif bi atteindre na ko loolu tax mu daal di arrêté boobu boobu caravane ba tax na tamit ci yenn ay kàddoom yi nga xamante ne si daal dina koy wax nee na dañoo confisqué woon li nga xamante ne si moo ay téléphone am euh, quatre téléphone am ñaari téléphone yi nga xamante si doon na koy ak ñaari yi nga xamante ne si utiliser wu ko ak li nga xamante ne si moo di armam armam boobu nag ak euh, armam ak autorisation port d'arme le ak yeneen yi nga xamante ne si bokk na ci la nga xamante ne si dañ ko confisqué woon ba tax na kii di Ousmane Sonko euh, mu ngi doon def appel si jeunesse bi ne nañu résister wu loolu daal jàpp nañ ko ci li nga xamante ne si moo di discours ba nga xamante si defoon na ko démb voilà image yi ñoo ngi nii yéen a ngi gis image yi ñoo ngi nii yéen a ngi gis cocktail yi voilà gis nga bunt bi buntu bi ni mu ni mu kee ki nekkoon fi yëpp dañ ko dal wala ñu wax nañ nag ne ci fajar lañ ko tal ci fajar ci fajar lañ ko tal motax fekk ñu ñi nga xamanteni ci amuñu euh, kenn ka nga xamanteni ci mën nañu ñëwaatal ci fey ni mu demee parce que amana biñ koy tal nit ñi dal duguguñ wala ay ndaw dal lañ wax ne ñu ñëw dal fi indi seen cocktail euh gis nga cocktail yi sax gis nga ni xoti butéel yi ci si image yi ñuy wax ne dañoo ñëw daal ko ba pare daal di daw daal di daw dem voilà.